bu baax xamoon na ne carrément il faut ñu teel a dugal pour mun a gagné match bi tey euh, loolu lañ def sa banque tey équipe def na ko bu baax. waaw loolu moom du yoon moom loolu moom du yoon donc comme ni ko waxee sax rek ba passé même bu nekkul mu euh, ñu ngi ngay match bi war nañ mën a gérer match bi quoi. loo xam ne tey war nañ ko liggéeyaat yaakaar naa ko. kon bii waroon nañ dugg daal non bii kay yaakaar naa ne war woon ba dugg mais dugg na quoi donc comme ni ko waxee rek Fapal manque de concentration moo ñu dara mais yii nag il faut ñu jàll si pour ne yàlla parce que tey mënoon na doon benn match boo xam ne carrément c' est difficile. mais Cheikh dañuy gis ngay gën di monter en puissance ces derniers temps te am na benn instance ay di commencé wala lu bëri Cheikh Maguette dans les titres mu expliqué zéro qu' est ce qui fait que Cheikh temps yi daal vraiment il répond présent sur le gerte bi. non yaakaar naa ne moom affaire moom euh, liggéey kese la. waaw amul loo xam ne carrément tey ren la jàpp donc man j'essaie pues, pues, de faire mon mon travail donc yaakaar naa ne loolu moo ko solo donc boo ko nekkee c'est pour essayer d'aider l'équipe le maximum possible et eh, loolu rek laa yaakaar ne maa ngi koy def te il faut que ñu si am ngeen information par rapport ak match euh, retour bi nga xamante ne anglais information yaakaar naa ne euh, mën nañu fa dugg à partir de lundi bi duggee à partir de lundi. waaw naa ne dina ko mën a dina ko mën a dugal quoi donc. Euh, retour nekk de zone rouge. waaw lundi day génn zone rouge quoi donc boo ko eggee carrément fekk dimanche guddi bi bu fekkee vers Le site numéro 1 du sport au Sénégal, sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android.